Bienvenue sur Salam Vision. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala yàlla yàlla doon suñu ci moom yeneen ci yàlla bëggaloo bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di am li ñuy mettalu rek di ko naqaru lool lool lool lool lool lool suñu xol laaj trop trop ci tur bi rek moo sell la waaye jëmm ci jëmmu mbaam la ndaxte boo xoolee li mu wax ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëmale ko ci wuy juróom quelqu'un koo xam si ne politicien gëmul dara. Mm-hmm. daanaka daanaka genre xaj la rek lañ ko mën a wax wala mouchoir agité fu ñu ko soxla rek utiliser ko sa pare sànni ko. Mm-hmm. kooku bu dee ba osé toog man mënu ma wax sax bi mais faa ma ndax mm-hmm. tur bi dafa sell. ku sell la. waaye jaxate su ma bañu woon tooñ sànni jaxate yëpp ma ne en général ñu ëpp suñu jaxate ñi ay jaamu naar lañu kon jaam moom jëfu jaam rek ngay def kon boo osé toog nga ne jullit nga. ñu wax ngay fen nga ni taalibe sëñ Tuubaa nga nga osé nga ni yaay yonent bi gënul sa yaay. ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan moo xam ndeyam ak baayam kan moo xam ndeyam ak baayam ñun suñu yoon daane ci ndey baayam ak ak ak baay yonent bi que benn nit may wax moom benn mu naan ma yonent bi moo gën ndey ak baay yow la gën ndey ak baay man sama ndey ak sama baay ñoo gën ñoo gën ndey ak baay yonent bi. nga ne kenn xamu ko yow yaay yow yaay yonent bi nga yemal ak sa yaay yow. yaa yéen aminatu naqiraan saairatu xam ni amina yi nga xam ne kuy jigéen moo ci gën ndax moo jur ki gën ñëpp muy rasulullah kooku du n'importe qui moo koy jur nit nag dina wax ba làmb taatam loolu moo la dal bu dee booy osé taxaw naan yaay yéen ko xam gënul sama yaay waxuma sax yaay yéen dafa bare yaay yaay maam Borom Tuubaa dafa bare Mariam Boussa dafa bare maam Fawa Dore dafa bare maam Umu Xayri dafa bare ñooñu dañoo bare ci moo xam ne tey ñoom ñoo gën seen yaay. ñi gën si yaay sax waxuma sax amee na mais dem na ne ci ñu mujjee yow yaayu Macky Sall rek moo gën si yaay ma Macky Sall rek laa ndax parce que yow liggéey loo ne daf la mbaam daf la xaj ba mu doyal sànni la daf la mu soxla acheté kon yaayam rek moo gën si nga bëgg a taxaw naan yaay yent bi gënal sama yaay amina ngay yemoon ak si yaay yow kan mooy amina nit balaa ngay wax da ngay ki ngay wax xam ci ki ngay wax kan la kan mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bul woon a moom tey dara du am si ñoom siraaji maali jàngal ñu ko moom borom tubaab ne soxlu ma doon dara ci moom lu xaadimal Mustafa yow nga taxaw osé un politicien boo xam ne gëmoo dara si coowu Sonko bi wut nga si bës amoo ci bës ngay naan laal nekk am bës su ma ko laalee am bës muy rasulaay ci ngay dajalee nag yéen yàlla jàmm waaye na xam ne waxuma sax yaayu Sonko sax moo gën si yaay ndax Sonko de woote juróomi dina ko topp yow boo wootee kenn du la topp borom day di liggéey ñoo koy xamee ci nga woote ñu wuyu la soo wootee kenn du la topp yaa ngi Sénégal ñoo ngi Sénégal wooteel am ñaari nit Sonko woote tey fukki nit topp ko ñaar fukki di liggéey waaw waaye nag daf ay pexe daf ay pexe daf ay pexe ba nit ay xam la boo ko jàppee ni booy ndee ju liggéey ndax nga sa bopp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Bienvenue sur Salam Vision.